coor fu mu fekk baax ca kër njabootug Jóob it ga docteur Yaxya Jóob bokk xol ya fees lool observateur ne daanaka wax fa ak nit yombul woon ndaxi rangooñ ak sëngéem seede yi foofe it di benn docteur la bu baaxoon bu bëggoon ñëpp ca jëppal kër Moor Ñang di magi Cheikh Ñang beneen infirmier bi nekkoon ci roplaan gi réer ña nga fay wéye yaakaar ndax ba fii ñu ne amagunu benn xibaar tukkee ci kilifa yi lu may rek li ñu dégg ci média yi ak réer lan wax ñu ne ñu ngi dundee yaakaar mënunoo def nag ay seede ci gisagul ab néewam waaye kenn ci xariti Cheikh Ñang di Issa mécanicien ci Médina rue 15 ma nga fa naan ku baaxoon la oyofoon lool amoon diine it observateur lu ñeel accident bi nag ne déglu geeg enquête yi tey lay door ca bureau d'enquête enquête et d' analyse ci njiital Mamadou Lamine Traoré lañu ko dénk dana ci am nag njàppale gendarmerie transport aérien ak commissariat spécial bu aéroport Léopold Senghor ko noonu expert ci wàllum karange yu asek na wër gi nag ak seet gi ñeel roplaan gi ñu ngi koy wéyal géej loolee le quotidien wax teg ca ne Espagne indi na ci taxawoom ko noonu réewum France le soleil ne il canari jàpp na ca wër gi yéene kaay bu an jàllale kàddu yi soxna Maymuna Ndoy Seck yore wàllu tukki mi ci roplaan yi ma nga ca naan roplaanu Sénégal air bi tegu woon na ci yoon ci wàllum kayit gi ko may mu naaw enquête ne état bi xibaar bi mu dëggal ci li waral accident bi mooy ak mbëkkante diggam ak roplaan beneen témoin ak spécialiste maison Boubacar Malal Ba gëmul mbëkkante bi ndax benn mu ne su doon dépressurisation ñàkkum ngelaw dafa amoon naka la ko ANACIM di xamee ca gisagul boîte noire bi lu may xanaa pilote bi wax leen ko ca bu boobaa pilote bi sax ci boppam day jalgati nga xamante ni mooy règlement gi ndax ñu ne bu ngelaw ñàkkee ci roplaan juróom ñetti minutes la pilote yi am ngir wàccee roplaan bi ba ñetti junniy mètre ngir oxygène ngelaw gu nu mën a noyee mun a amaat mbëkkante mu ne daanaka mënatul am sax ci jaww ji ndax radar anti collision yi nga xam ne ñoo yëgal dawalkat yi avion yi ne mbëkkantee ngi waaj a am yëf yi daal ci gàttal témoin dafa jàpp ne am na ca lu leerul wala lu nuy nëbb loo xam ne faw mu leer laata bépp conclusion noppee gunu ci waxi roplaanu Sénégal Air Libération ne xaw tuut beneen jéye am ndax nag ñu Sénégal bu defoon téeméer ak juróom fukki doomu aadama moo fi naawe woon minuit aéroport Léopold Senghor fan yi ci ginnaaw waaye ci mujjantal mu wàññiku bi nga xamante ni pilote yi dañoo gis ci jafe-jafe ci wàllum technique ci lañ tasaare client yi ci hôtel yi ci Ndakaaru ñu fanaan fa ba TAP Air Portugal xëy wutal leen roplaan beneen wàllu yoon Hissène Habré ak i mbiram ak kerse gi ko enquête jàppe ndax anam yénu ko nguufaane yóbbu ci kanamu chambres africaines extraordinaire ci yéenekaay bi kenn ci avocat yi ko ëtt bi wutal ca mu ne bëggu leen gis ak i gët maître Mbaye la mu rëccu rek mu ne mooy li Habré lank coopéré ndax mu ne ci dossier bi la ñu ko toppee ne tuuma amu ci fu nu ko wéer ci wàlluy firnde su du quotidien ne pagaay dëgg la Hissène Habré dugal tribunal démb kenn ci avocat am nag moom Hissène Habré maître Ibrahima Diawara ci yéenekaay bi ne Hissène Habré am na sañ-sañu bañ a wax lu waral ñu bëgg ko indi force ci kanamu ëtt bi avocat victime yu Tchad yi nag di Jacqueline na ba tey ci Sud Quotidien ne su dee Habré jël na dogal wéyal théâtre gi mu nekkee du tere yoon def liggéeyam yoon it ñu ngi koy xaar ci tiis woon ci le populaire ñëwaat ci ne Bouba Sakho moo ne jour trois heures du matin kër njabootug ba faat fa rak ak mag yi di Naziru ak maaxa waaye populaire ne xaw tuut moom it ñu daal ko rey njabootam sax mu ne di ay dëkkandooy njabootu ba dañ leen rawale police a def lu ni mel ngir seen karange laaj tribune tuddee ko boucher bi yéeni kaay bi ne ba mu defee ñaawteef bi boolewu ca benn rëccu lu may dinaan dafa teggil seen yaay coono yaay joo xam ne ci naqar kay la ko baa ndax ci kanamam la rayee doomam banlieue Ndakaaru moom amatul fu wata jaar ndax ndox yu bari yi fan yi la xëy nataal gox ya fu neem ndox wata yi tëmb dale ko Pikine Géejawaay ba Parcelles Assainies askan wi tegal leen ci xibaar bu naqari ñeel tabaski gi yéeni kaay bi ne ku moywul xar manqué ren ndax ñu ne tabaski ñaari ay bési ges ca ba fii ndakaaru seen a gunu xar bari fii rawatina ci bërëb yi nga xam ni fa lañ daan fees dell ku moywul ñu ne ak certe it am ca du ñàkk tabaski gi ak boroom kër yi sëngee moo waral xol jigoon jugoon ci jumaa ca puut ndax laas nee na dimanche di ci tànnuk ilimaan ay gourdin jóg na fa ci jumaay mbayeen bu puut la gendarmerie ca dox ñaari wàll yi fay xiiroo ngir ak jiite nag mooy ñi ànd ak ibrahima seck ak ñi ànd ak imam abdoulaye siis doomi ilimaan ba fa newoon ca wàccëb liggéey danoo mujj tëj jumaa ja fi léeg gindiku yam